parce que loolu man damaa jàpp ni réew yi nga xam ne dañoo développé yépp di dox ci démocratie amul kenn koo dem fekk fa maanaam ci règlement ci code électoral fekk fi loolu article 57 bi. loolu Aly Ngouille Ndiaye moo ko fi indi woon à 2018 pour xam ni Karim Wade ak Khalifa Sall mën nañoo nekk candidat ñoom ñu dugal ci France boobu pour ñoom ñu bañ a nekk candidat non électeur boobu bëgg naa ñu waxtaan ci. monsieur euh, ministre l'intérieur tey da di suru que ñëpp dañuy jàpp ni. Khalifa Sall ak Karim Wade ñoo tax ñu indi lii non non parce que bu dee Karim Wade li nga xamante ne maanaam ci article 30 bi boo xoolee depuis le 21 août 2021 ci code électoral bi Karim Wade bind mënoon naa binduwaat parce que loolu la code électoral bi wax kon lii engagé wul Karim Wade dafay ñëw rek confirmer li nga xamante ni tey mooy dëgg-dëgg bi nga xamante ni askan wi jox na ko Karim ak li nga xamante ni mooy yoon te Karim Wade aussi monsieur le moo dogal tey nga ñëwaat ndax biñ koy condamné ci kër yi yow nekkoon bi ñu condamné xalifa Sall yaa ne nekkoon espèce maanaam ascenseur de l'État bi ñuy tëj xali euh, euh, euh, Ousmane Sonko te yaa nekk ministre de l'Intérieur ñett yooyu nag conséquence la daje la wala est-ce que yàlla moo dogal loolu loolu tamit bëgg nañ si aussi ñu xam ni askan wi maanaam mun ñu ko yor ci nguur te waxtaan amul mun ñu yor nguur te jàmm amul kon jàmm boobu noonu man moom laay woo ñëpp monsieur le ministre lii nga xamante ne mooy section extraordinaire bi ñun yoon moo ñu ko sant ci article 63 ci constitution bi article 5 ci li nga xam mooy règlement intérieur assemblée nationale kon jàpp naa ne ñun war nañ ko def mais li nga xamante mu laa si def loolu rek mooy fast bi nga xamante def nañ ko ndax boo jógee si code euh, règlement intérieur bi dafa wax ni bu ñu defee commission ba plénière bi délai bi 72 heures la malheureusement respecté wuñ boobu moo tax yi nga xam mooy rapport bi ni mu war a mel noonu monsieur le ministre boo xoolee ñun ñi nga xam ñoo nekkoon coalition Wallu ak Yewwi bi ma àndee ak Ousmane Sonko campagne sama oto waxoon na ni bu ñu amee majorité daan modifier code électoral article 28 ak 29 yaakaar naa ñun ñi nga xamante ne bi ñu defee séminaire coalition Wallu ak Yewwi proposé woon ko ba déposé woon ko fii nga xamante mooy ci bureau assemblée nationale ngir ñu mudd fee li nga xamante moo ñaar article yi kon jàpp naan tey bu ñu waxtaanee ñun dialogue ba d' accord si loolu bu ñu ko indilee te ñun ñu gëm suñu bopp sàmm suñu kàddu ngir intérieur mi kese ñun ñëpp war nañ ko commencé wote ko parce que ñun avant ngeen di ko indi d' accord suñu pour ñu modifier loolu parce que ni nit ku nekk yàlla rek mooy dogal kan boo xamante ni andi nañ ko fi mu am mën nañu waxtaanaat loo xamante ni dañuy am benn code boo xam ne code consensé lay doon comme code Kéba Mbaye boo xam ne askan wi yëpp ak acteur politique yi ak société yëpp dana si manko nekk si benn di jaajëfal bu baax ki nga xamante ni nag moo jiite woon dialogue politique bi muy monsieur Thiendella jàpp naa ne ñun bi ñu nekkee ak Ablaye Wade Thiendella mi ngi fi woon bi fi Ablaye di jógee Thiendella mi ngi fi bu fi Macky Sall jógee Thiendella dafi kon nekk parce que administration la kon ñoom ñëpp war nañoo joxe exemple administration bi ci Thiendella la parce que république la te day doxal réew mi moo tax sax ma jàpp ne man bu ma jëlee réew mi moom laay nommé ministre de l'intérieur pour que maanaam mu mën a doxal parce que ñëpp la yemale ba pare maa ngi proposé li nga xamante ne moom laay wax mooy opposition bi ak Benno Bokk Yaakaar ñu ñëpp d'accord nañu ni dialogue bi liñ ci waxtaanoon mooy maam ñu am organe boo xamante ni dafay nekk indépendant boo xam ne dafay contrôler li nga xam moo jëm ci élection yi ñu ñëpp d'accord nañu président de la république bu jëlee candee la jox ko ministère de sélection dinañ si d'accord kon loolu laa leen di wax su vous ko wote tey danañ ko wote ëllëg intérêt askan wi tax ñu du ko wote du suñu intérêt du intérêt keneen maa ngi lay sant di la gërëm sécurité bi nga si taxaw ñi nga xam ne dañuy jóg di taal dëkk bi nan ko bàyyi di saboté yoonu murit nan ko bàyyi parce que gis naa ñu dem taal parce que nag màggal mënul jëm nga bëgg a couper courant Touba bi kooku xeex sëñ Touba la xeex islam la loolu duñ ko accepté je vous remercie loolu nag na ngeen si jël seen responsable wasalaamaaleykum wa rahmatullah merci la le de 84 rappel merci le suivant c'est Thierno Alassane Sall auzu billahi min seytaan rajim bismillah rahman rahim réparer une injustice c'est bien mais ne pas la commettre c'est encore mieux je suis fondateur de Taxawu Sénégal